gis ko moom démb sax supporté na Lions yi def mayam bu baax nga def tubéyam def jeune yow aussi nan nga supporté Lions yi. waaw comme tous les Sénégalais hein, comme tous les Sénégalais euh, supporté neen euh, avec détermination mais euh, mais man dama xawoon découragement quoi pour le dire euh, euh, non seulement défaite bi découragé na ma mais leneen lu ma gën a découragé c'est c'est Sadio Mané. parce que ñun on a problème d' attaquant ñu doon am problème mu attaquant boo xamante ni day daw dugal te euh, am na ay occasion yu bëri yoo xamante ni que euh, dañ koy raté te yooyu ay but la war a nekk donc boo xoolee défense bi tamit xawoon des tuuti mais euh, gis nañ ni sénégalais yi football neen quoi premier 45 minutes yi. ba ci euh, deuxième quarante cinq minutes yi nag euh, moment yi nga xamante ni presque fin fin du match bi la ci la gars yi ma accéléré tuuti gars yi parce que xam ne ni boo xaw neen déconcentré wu tuuti moo waral deux buts yu ñu encaissé mais euh, pour un début man je me dis que cin bu naree neex su baxee xeeñ ma pour man booy départ da ngay départ pour gagner nu amoon nul sax moo tane woon nu dóor nu ay 2-0 parce que loolu aussi dafay indi li gën a indi problème encore ci lu wuti ji mais euh, ni nga wax ne yàlla na yàlla sotoraal mais man de euh, sans Sadio maane vraiment j'ai peur te loolu moom euh, je le di ici quoi mu leer sans saajo maane saa ne marchera pas oui sans saajo rek ça ne marchera pas parce que am amuñu ay attaquants yi dem di dugal yi te aussi dañuy perdre yenn occasion yu bëri yoo xamante ni que loolu ça nous arrange pas dugal but mooy sunu problème c'est-à-dire dugal but ñun dañoo am problème yooyu ci suñu ay joueur maanaam gérer de euh, gérer sa attaquant dugali but ñun on a problème là au fait on a que Sadio Mané moom nga moom mi nga xamante ni moom rek moo capable di def loo avec sa rapidité surtout euh, di di mën a joxe yenn yenn yenn yenn yenn yenn but yi nga xamante ni que ñun ñëpp def ñuy soulager au fait mais euh, boo xoolee match démb bi avec euh, Pays-Bas Sadio dafa manqué carrément ci terrain bi parce que gars yi joué nañ football nañ mais li manqué woon mooy léegi but bi nag war a dugg quoi au fait te on avait ce problème là au fait moo tax man la je ne crois pas que euh, avec la coupe du monde ni muy doxee nii donc je sais que on a de très bons joueurs suñu coach yi aussi tamit on a confiance à lui mais euh, li li problème bi mooy saajo maane mi nga xamante ni daal euh, fubalul te man loolu daf maa tiital non daf maa tiital trop parce que dama doon waxtaan sama benn xarit mu ne ma est-ce que Sadio Mané sax am na lu ko dal parce que tubaab yi ñoom seen bopp xam ne ni sax bu nu bloqué wul Sadio Mané sénégalais yi mën nañ jël coupe coupe du monde bi te donc ci Sadio maane rek ne mën a jaar pour euh, pour am lu ñu ko teg. Euh, loo xamante ni que dafay permettre daal fa Sadio Mané du. gaañu Sadio Mané da nga siy sikki ba tey sa xel kii wu parce que ñun ñun Sénégal leen dëkk ñun fii yàgg neen petit camp yàgg neen football fii da ngay am góom sax di football di gaañu di football mais euh, mais blocage Sadio Mané dafa bett Sénégalais yi bëri quoi même man mi dafa ma bett. parce que man loolu xalaatu ma ko woon te euh, lu tax ma ne xalaatu ko mooy c'est-à-dire ñun Sadio Mané mooy sunu ñu mooy sunu leader quoi. Hein, donc or que nous sommes euh, tous derrière li Lions mais lépp loo gis yàlla mooy def li euh, kuy jiitu donc Sadio nag responsabilité yooyu la am mais man je me dis que Sadio Mané moment bi nga xamante ni daal dafa dafa dafa taxaw arrangé wu daal benn instant. Et, et et je me eh, li sama xarit di wax démb nu koy partager ensemble est-ce que yëpp tubaab yi manigancé wuñ ko pour bloquer Sadio maane pour bañ sénégale bañ a jël coupe coupe du monde bi. voilà voilà te xam ne ni africain yi dañu am jom dañu am fulla dañu am fayda dañu am détermination mais tubaab bi ñoom noonu jaar foo xamante ni que ñun les africains dañu comprendre blocage yu Sadio Mané bii daal euh, waa tegeen xel daal man pour man je me dis que sénégalais melul nii quoi parce que ñun daan nañ football di am ay góom di am ay blessures et ça et ça empêche pas aussi de de jouer parce que ñun ñun xam nañ loolu mais blocage yu Sadio Mané bi daal vraiment tegeen xel trop trop trop. jógee ci Sadio Mané dañuy ñëw ci Saliou Ciss dañu seetaan ki nga xam ne moom mooy di Gomis mu expliqué ñu ni Saliou Ciss dafa am koo xam ne da ko sacrifié koo xam ne dafa bokk ci fédération sénégalaise bu football boo xam ne ne sa euh, Saliou bi mu demee pour signer waa ji si boppam moo dem yàqal Saliou foofu noonu donc moom moo ko démb aussi ci émission DJ Yves am keneen ku ñu invité mu confirmer loolu wax ni Saliou Ciss donc jotul signé ci benn club pour depuis bi ñu jógee ci kaan bi parce que dañ ko yàqal te ki ko yàqal sénégalais la dem na sax ba ci club bi mu bëggoon signé nee leen bu leen ko fay lii fay leen fay leen ko lii gën wàññi li nga xam ne moom lañ ko bëggoon fay donc en tant que champion nga ñëw ñu bëgg la fay yenn donc moom aussi mu dellu ginnaaw donc sénégalais aussi li ñuy defante suñu biir des fois. waaw mais loolu yàgg na ci sénégalais sénégalais euh, noo lay fal noo lay folli sénégalais moo lay gërëm moo lay xalab. sénégalais moo lay wax ci yow lu baax bu subaa mu wax la lu bon sénégalais moo lay tagg suba mu xas la loolu lépp sénégalais moo koy def sénégalais moo lay jiital ba pare di la faxatal loolu lépp dafa bokk ci sénégalais c'est-à-dire au fait euh, euh, dana am esprit boo xamante ne esprit bu ay bu arrière la. mooy euh, amuñu solidarité entre nous nous les sénégalais bëggante wuñu ci sunu biir à cent pour cent euh, dañ lay ree te li ñuy def c'est pas vrai da ngay am confiance ci sénégalais mu war la da ngay jëflante ndik lu baax pendant des années et des années mu def mu mu fay la lu bon donc loo Sénégal da nga koy dégg ah. Sénégal noo lay noo fal noo lay folli noo lay xas noo lay tagg loolu lépp sénégalais moo koy def sénégalais moo lay yàqal suba moo lay defaral nu mu lay defaralee tamit noonu lay yàqalaatee loolu lépp sénégalais moo koy def te loolu esprit bu bu arrière la sax parce que euh, ñun dañu yàgg wax la pays de la teranga fii euh, dañu yàgg wax ñun baax ci Sénégal la fekk baax teraanga ci Sénégal la fekk baax dafa am jikko yu bëri yoo xamante ne que Sénégal la fekk baax mais ce qui est désolant aujourd'hui mooy tey jikko yooyu dañ ko jël teg ko nële am yeneen façon jëfin am yeneen façon doxalin am yeneen façon nekkin et qui c'est ça qui est malheureux nag lu ñuy am un retour mooy yàqalante gi mooy ku xamal sa sa waay dara yàqal ko ku xamal sa waay dara Euh, weer ko euh, ku gis dara ëllëg nga suturaal ko ci préfère nga weer ko moo tax boo seetloo nu dëkk bi di doxee saagante yi di tàkkarnaase fii waxante yu bon yi di tàkkarnaase fii euh, defante yi fii di tàkkarnaase fii te loolu la fan la xew du Guinée du Abidjan Sénégal la xewee te nous tous nous sommes des Sénégalais yooyu nag dañ dem ba yàq jikko yi yàq xel yi xalaat yi dugal ñu ñi leneen ci seen i mentalité teg leen ci ay affaire matériel ak luxe loo leen gis boo amulee pour yoo amoo valeur amoo dignité amoo personnalité te loolu lépp tey Sénégal daf fi daf fi néew yenn valeur yi nu am ko pour aussi doxi noonu pour suñu mën a pour suñu réew mën a évoluer ñun tey bu nu doon defaral tey lu ne tey ci àdduna bi te changé wunu suñu ay jikko changé wuñu suñu ay doxalin changé wuñu suñu ay suñu ay suñu suñu nekkin Euh, ça ça ne passera du mës sotti même bu nu amee ay tali or sax wala ay tali jama te jukko yi soppeekuwul xalaat yi soppeekuwul ça ne marchera jamais.